juróom benn waxtu jot na ñu ñëw génn seen xibaaru max yi li ci gën a fës euh, tiis bu metti lañ yeewoo ñoom waa marché euh, syndicat bu kaw Kaolack ab camion bu toll si juróom-ñetti fukki million lakk na ci ñaar fukki kant nag ak fukki xar ak juróom danañ ci ñëw ci suñuy euh, xibaar sëñ Mbacke Babacar Moukabaro amal na ni mu ko daan defee at bu nekk bu ndogu fële ci diwaanu Touba sa diwaanu Mbacke Diourbel amal na ko nag ci altine bi waaye nag ak tiis da cee tof ndax da ci am ab genn si ay taalibeem ko ci ñàkk bakkanam dana ci ñëw si biir eh, xibaar yi ñi nga xam ne eh, dana ñëw si biir xibaar yi ki nga xam ne nag mooy suukar bi ñàkkoon léegi mën nañu jàpp ne eh, jeex na ndax ñaar fukki ton ak eh, ñaar fukki junni tonnes ñëw na ci réewum Sénégal wàcce nañ ko niki jëmb war koo séddale ci réew mi mu nekkoon loo xam ne eh, fan yëpp suukar ñi ngi ko doon jàmbat kon coono jeex na lii danañ ci toftal xibaaru tàkkat yaram mooy ndara képp xibaar yi nii tuuti ñëw ci faram fàcce bi k'a tɛ falen tɛ e fɛ ni perspective yi ci jamono yi ñu toll ñu ngi ko waxee ci ndortalu xibaar rek Kaolack dañoo yeewoo tiis bu métti ndax ca marché syndicat ba dafa am ab lakk bu fa amoon jaaw ji si guddi guddik ba jàpp alxames lakk nag mi ngi am ci ñeenti waxtu ci fajar loolu nag métti na trop ci ñam fa fekk ak ña fa mën alal ndax ñaar fukki kan na juróom-ñeent moom lakk tàkk-tàkk yóbbu na leen ab camion bu ñuy bu toll si juróom-ñetti fukki million di ab camion malien moom it bokk na ci lakk ga waaye te ñaar fukki Eh, fukki mala ak juróom-ñeent di ay xar bokk nañ ci dañ ciy topp suñ micro trottoir naataango yi nga xam ne mooy Dakaractu. ñu la tudd si affaire gerte dugub yi seen ko ko ni gerte geeg dugub yi ne si yàlla wàccee si guddi gi yéen nañu diggu guddi marché baa mi ngi lakk ñu ñëw fekk nañ fi yi wax dëgg yàlla ñoo mbokk yi fi jege jàmbaar waaye nag li yàlla tudd moom mënuñu si leen waaw. ndax gis nga ki ni de gerte gi de ko fi indi won diko xolil ki denkan fi ben ton yëpp ci la bok ci sama resaba lañ nekkon ñi ndax ñi won sama bir magasin waaw ke tam tek fi ñaari toni gerte lepp ta lakkan si boo geesoo sa gannaaw sax seen ngoko ni mo lu bet gannaaw mo mbokk dug bi mom seen ngoko dara des ah lak bi de man bi may wax fi am ñima fi njëkk a ñom ñoom nee affaire courant bi la courant bi lañ wax dañu wax de yalla courant bi lañ wax waaw ndax amna ku ne auto bi waaye duut oto bi ndax ki nee na ma oto bi bi bi bi sawar yu jógee ñëw na di ko taal bëgg koo génne waaye bi oto bi jël ak kii bi ëpp na ko doole mu daw mu daw dem benn oto bi jot naa génn. sapeur yoon yi nag dañoo xamul yoon yi xam nga fii ñaari yoon moo fi nekk yoon bee kanaal bi wax dëgg yàlla dafa rës boobu ba léegi amuñ si ndimbal bi ma ñëwee bi ma leen guidé Euh, kii bi ma ne ko pële ngeen war a loolu oto bi war a wàcc mu door a ñëw wàcc jaar côté bi ñëw taxaw fii xam nga door mën a dimbali ñu fii ni euh, am lu fi mucc moo waral place bi suñ gannaaw ni mucc waaye fii man bi may kii li nekkoon ñaar fukki ak juróom man moo ma leer ndax yenn yi xam nga du place yi ndax dañoo si syndicat bi bu ñu wàccee comme li ma la wax man mi benn place bi ki si dencoon gerte googu noonu ma def man si biir nii bi bascule bi nek ci ko mbedd mi ñi ñuy liggéey xam nga noonu lañ démé ñi di fi ni moom xam nga centralu kër la li mom kër la fi ñu nek taxaw ni kër la té yor naa fi place bu ma xeyé jigéen ñi dima fi tanal gerté buñ ko tané mo génné ci mbedd mi tek jaay. Souleymane Touré. ah ima kee na non yàqule mom bari na lool lool comme niko waji expliquer presque amna na lim ci baye presque kenn ku ne ya xam sa place li nga fa bayon ak li fa ne. bari na lool lool wax dëgg yàlla bari na surtout man suma bopp man suma place moom li ma yàqule mënu ma koo àpp pare daal bari na lool lool lool te am na suma ju suma ñetti morom yoo xam ne wala juróomi morom yoo xam ne ñoo ma ëppale encore wax dëgg yàlla métti na lool lool lool métti na voilà waaw suma place moom wax dëgg yàlla ay million millions la presque amoon na lu mat euh, vingt sacs engrais gerte dugub kii lu na lu bëri daal. fi amoon place kay. xool naa fi lu bari nag wax dëgg yàlla. tonaasura qalbum xaw a kii ak machine presse yëpp lakk na wax dëgg yàlla yàqu naa lu bëri bëri bëri bëri. Ah, moom dem na ci ay 3 millions. lakk bi dama wax dëgg yàlla man damaa jékki rek ñu wax ma téléphone ne place ba ngay lakk. daanaka si boobu man la jeunes yi ñoo ëpp sax jeunes yi ñoo ëpp fii ay jeunes rek ay jeunes rek encadré ay borom kër yu ndaw kese fi ne ay maire yoo xamante ni ñuy dox sax seen dox dëgërut dañ ñëw di xëy. daan seen doole waaw wax dëgg yàlla ñu fi nekk ñëpp daal ñu gëm seen bopp lañ waaw yàqu-yàqu bi nag bi mu amee am ñoo xam ne sax bi ñëwee dañ doon jooy waaw mënuñ si dara nag parce que ndogalu suñu borom la des daal mooy ndimbal lam daal la ñuy sàkku waaw si nguur gi waaw waaw ak maire bi képp koo xamoon ni daal yaa ngi si état bi daal état Sénégal ñu lay rof loxo pour nga dimbali ñu noonu la ñu yeewoo tey ñoom euh, waa syndicat mu nekk tiis bu métti rek euh, bu dal seen kaw ci fajaru tey jile euh, kii di nitu diine di Serigne mu Moukabaru Mbacké moom nag def nam ko daan defee at bu nekk ren amal na yóbbu ay ndogu fële ci diwaanu Diourbel ngir yóbbu ko xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mbooloo ma takku nag ñoo àndoon ak moom euh, gunge ko ci mu yóbbul waajuram woowu ndogu yi ñu ànd ci ak euh, Thierno euh, Thierno Diallo ak équipe bu Kaolack TV bi ñu àndaloon. na la ñu ko magam ju baax ji daan defalee rek te moom sax mu nangul ñu ci loo xamante ni daawuñ ko am ci magam ju baax ji ngir ba mu fi toogee ba léegi diir bi sëriñ bi magam jooju nekkee toogee ci jotaayu sëriñ tubaab bi kenn ku nekk xam na ne dañuy gën a guddee ñëw. te da tisbaar daana fekk ñu ñëw seer suñu bëgg ba demaat waaye léegi nag gis nga day ñëw ginnaaw tisbaar la ñu daanaka takkusaan day day jege see waaye ci mbaaxam ak yërmandeem daf ñu koy nangul waaw te yàlla rek tax waaw kon eh, liñ ko ñaar rek magam yàgg ci toogaay boobu mu toog lool moom wut gi ñu ko wuti fii ci fii nga xamante mooy kër Serigne Touba Serigne Touba génn kër la amoon goo xamante nekkoon na fa nekk fa jàkk yaakaar naa 1900 16 ba 1928 fukki at ak ñaar euh, koy fekk waaw koy wax dama koy ànd xol bu tooy xëpp damay wax ne xam nga kenn nga gënu kenn kenn moomu kenn ñun ñu yàlla ñu bokk moom waaye xale yi surtout euh, te damay wax ne Kaolack toujours may wax rek li yàlla dimbalee su su su su su gàmmu amee day mel ne dëgg xoolal maam tijaan rek ñoo war a gàmmu murid dañu fàtt ne ay julli lañu dañoo dañoo dañuy jàpp tijaan war a gàmmu su magal tubaab yi wala magal poroxaan am nga xool dégg nga ni ñuy da da daayira yi togg ci magal poroxaan yi tijaan ñoo ci ëpp ñoo ci ëpp nag ñoo kenn dinañ ci mën suñ ci mënul xel euh, kenn ci mën magal tubaab euh, kon ko loolu defal ko loo xamante ni dama naan dañ fuur la Euh, Carrefour la ngir dégg nga mboolem goxi Sénégal yëpp di nga xoolal fii lañu ñu fasantikoo ci Kaolack waaye bu noppi dégg nga mboolem tarixa yëpp nag tarixa bu nekk Sénégal rek dégg nga am nga taxawaay bu bu mag Kaolack boo xamante nii dégg bu ràññeeku la waaw suñu jógee bay dem nag dégg nga maam xool jotaay bi rek benn ci yow mi ma laaj benn ci Ousmane Mbaye nga benn ci Cheikh Khady Thiam sama wëlu yooyu dégg ak boo ko boo ko am yéene ñëw te ñëwuñu mbooloo mu bare ko toppoon nag waaye nag ci mbooloo moom nag am na kenn ko am da cee ñàkk bakkanam ba ñu yeggee ci diwaanu eh, Diourbel ci ab eh, l'accident ñaari moto yu fonkante eh, ba kenn ki ñàkk bakkanam sëñ sëñ Babacar mu kabaloon di ko sante yàlla di ñaanal way dem ji waaye nag di am ay kàddu yu mu ci jëmale ko ci njabootu way dawlu bi dañ koy dégluwaat ba léegi ci micro Ousin Ndiaye ak Thierno Ba Thierno Diallo. moo ko àdduna ànd moo ko àdduna ànd Euh, yàlla dellu njëkk a sàkk ci dund te bisu neex bisu bànneex day am bisu ban naqar day am te bisu naqar sa warta am waaw bisu naqar warta am lii am ci yoon tey mi ngi ciy door am dégg nga yàlla na ko yàlla yemale waaw euh, xale bi ci wàcc liggéey mi lii ko Cheikh Modou Fadal mu Cheikh Modou Bachir dégg nga seeral doon sëkk mi ngi mel ne ab julli bu doon dem ci xare dégg nga ci xare bi lislaam wàcc ci liggéey kon kooku dañuy yaakaar am yaakaar ci ne dem na àjjana loolu moo am est-ce que ñun ko am waaw tey bisam bii tey xool mu doon jaas ala kulli al mu amoon ko ci àdduna waaw fi ko amee dégg moo gënal muy dem da nga yab da nga di dem moom la ci yoon wi da nga dëgg yàlla métti waaye maa ngi koy ay mbokkam ko jàll mbokk taalibeem yëpp waaw tey soo gisee sa xale ni ñaan defee délégation sikar dem ba sëñ bi gis nga bi ñu àggee njaar rek ñëpp yëg ko ñëpp seen dafa daal dee man bi ma tëbee xale bi sama sama

kilifa kooku daal laa fas yéene doon parce que boo doon kilifa koo xamante ne may laaj sa addiya da ngay lekk da nga soo xewle da nga ma ñu taxaw naan naan di duf li ñaan loolu ñaan ma ko yàlla waaw loo mu defee rek bëgg naa la ko fay fii ci àdduna waaw wóor suñu tuwaa waaw kon ko jaar baax fay ñëpp maa leen ko siyaare baax a baax su ma ko ay mbokkam mayee dama ko bëgg a ñaanal ci ñetti fan yi muy alxamis waaye suba daal suba incha allah bàyyi faale ko mën ci ñi kuréel a kuréel xasaayit ak ñi nga a sikka samfaal nañu wut ma da nga jël jël mbokk yi ak bàyyi faale yëpp da nga ñu ànd ak ñoom da jaar jubbe yi may mu dugg ko man dem ci dem liggéey may demal ci ay baayam naan leen saraxal seen doom loolu du def ma ci àdduna sama ngor may ma yóbbu ndogu li nag mi ngi ñu fàttali ne mi ngi amoon altine bi weesu tombeek ti fan ci weeru avril gi ñu nekk ñu wax ci beneen wàllu ci conseil départemental bu Kaolack njiit la di Mouhamed Youssouf Bengelloune amuloon na ab ndaje ak taskatu xibaar yi ñu defee ko ndogu presse ni ki démb moom la ca jotaay boobu la mu ci doon fexe la ci doon def rek mooy waxtaane ab bilan boo xam ne am na ko ci fii nga xam ne moom mooy conseil départemental bi ginnaaw bi mu fi nekkee atu yàlla boo xam ne le mars la mat waaye nag am na yeneen mbébét yu nal ngir atum 2000 2023 euh, Ahmed Youssouf Bengelloune ci micro Hassan euh, Thiam ak Babacar Mbaye. malgré les ressources limitées conseil départemental a def na ay en am solo ci année 2022 ci santé ci action sociale éducation formation professionnelle enseignement supérieur jeunesse et sport environnement ak appui développement territorial waaye tamit ci amélioration conditions de travail ñu dëkk dikk des ci wàllum santé conseil départemental année 2022 réhabilité na manam Defrat na gën na jagal maternité yi nga xamné poste de santé yi may bëgg a tudd bu kër Alibasi bu Kumbal bu kër baka ak bu Këwan travaux yi ñu ko estimé ci 17 millions 560 mille waaye tamit conseil départemental tabaxat na wala tabax na logement sage-femme poste santé abattoir ci 9 millions et quelques conseil départemental équipé na poste de santé yi may bëgg a tudd muy bu kër Ali Bassine bu Kumbal ak bu Këwan ci lu tollu 8 millions francs tabax équipé na tamit poste de santé bu Sam si Katrum centre de santé Ndofane ci lu tollu lepp soko bolé 5 millions conseil départemental bi nak action phare bu mu gëna def pour man ci année 2022 moy campagne octobre rose xam ne ne détecté nañ ci cas cancer jàppale nañ ci prise en charge mu defee ko ci surtout ci commune Ngothie Ndiédiène Ndofane ak Kahone ñu def ci ay millions yu bëri waaye nag am ay partenaires privés yu ci jàppale may remercier foofu rek docteur Mati Cissé mi nga xam ne ne moo nekkoon coordonnatrice programme boobu noonu ak équipe bi mu àndaloon yépp ci wàllu action sociale ci ndimbalante conseil départemental ci atum bi ñu génn jàppalante nañ ci ñi wax les grands malades manam ñi am fièvre cancer hémodialyse ak yoyu ci valeur 3 millions ak genn wàll jàppalante nañ ño xamné né seen doole jotu seen ginnaw ci walu ci surtout nak ci jamonoy ramadan pak ak tabaski waaye tamit jàppalante nañ ci yenn kër diine yi ci gamu ak magal lépp ci jamono boobu noonu luñ fa def mën na 13 599 moom mi ngi doon def bilan gannaaw atu yàlla bu mu def ci bopp eh, yi nga xam ne mooy conseil départemental eh, di bokk moomeel gi nga xam ne moo ëmb fukki commune ak ñeent yi nekk ci diwaanu département bu eh, Kaolack ñu wax rek jëmale nag ci loo xam ne nii njooy la woon jàmbat la woon na bi koor gi taxee ba léegi ku ci nekk di ko jàmbat mu ñàkkum suukar léegi nag mën nañu wax ne jeex na wala wàññeeku na na ñaar fukki junni tonnes réewum Sénégal ay wàcce na ko ni ki démb pour ngir séddale ko ci biir réew mi ñuy jaay ko ba askan senegal bu ne mën cee jotandi ñaar fukki tonnes yooyu nag ñu ngi ko indi ci ni ki démb dañ ci ànd ak Fanta Badji suukar mosul ñàkk ci réew mi ndax ci hangar yi nekk ci port sec bu Hann Bel-Air stock bu takku moo fi nekk yàgg wax rek ne suukar si am na mais mu yegg ci biir marché moo doon jafe-jafe ji suukar ni dana am spéciale bu gouvernement pour permettre ñu duggal ci système marché bi vingt mille tonnes de sucre pour mu un peu mu combler situation bu mu xaw tar bu ñuy bu dund fan yi ci wàllu suukar si douane bi ak ñëpp def nañ seen liggéey ma xam ni lu ñu yàkkamte woon gaawaay bu bu doon ñaan am nañ ko fu ñu toll nii camion yaa ngi chargé suukar saa ngi dugg ci marché bi te jàpp nañu balaa yàgg stabilité bu nu bu nu amoon ci suukar si dina dina dellusiwaat incha allah. lii nii benn magasin la ci dix magasin yu mën a def fii suukar. suukar am na fi suukar dañ koy jëlee Europe mu ñëw fii taxaw bu ñëwee fii taxaw ku bëgg jënd dem Mali fii nga koy jëlee ku bëgg jënd dem Guinée fii nga koy jëlee ku bëgg jënd dem beneen dëkk fii nga koy jëlee xanaa nag ñun du ñu fi jiitu yore suñu entrepôt. yore suñu ay magasin yore fu suukar di ko stocké ñun ñuy seetaan di manqué di servir ñeneen suukar am na fi en abondance ñu ngi koy génne dinañ ko jaay dinañ fexe mu yegg ci table consommateur yi jamono yi weesu askan wi xamatuñu woon lu xew ci diggante suukar bu ñàkk wala bu ñu denc waaye jëfandiku bi jaaxle woon lool. ñu naan clients yi fii ñoo loolu ñoo ngi ciy étudier ñoo ngi étudier lan moo waroon lool mais dans un premier temps ñun ñu fexe mooy suukar si disponible ndax tamit foog mu disponible. dafa am période boo xam ne production locale moo koy moom boo xam ne moom day arrêté période boo arrêté boobu dañ daan importe moo tax fu ñu toll nii jamono ji normalement wootu woon nekk mais comme que nag am jafe-jafe na. ci ñu population gouvernement ne ah comme que tànn foog ñu xool ay jumtukaay yu mun a teg pour jàpp jàppale nit ñi. ngir dakkal loolee nguur gi jël dogal indi ci marché bi sucre importé bi. dafa am boo instant boo xam ne ñun ñoo mun nañ ci am droit dugal mise à la consommation ou pas. loolu lañ doon am léegi am nañ autorisation pour la mise à la consommation parce que suukar ngeen gis yëpp su douane la de day mel ne nekk gul Sénégal. ñaar fukki ton yii nag ngir mu génn dafa laajoon ab dogal bu spécial dogal boobu mi ngi dog a yemb camion yi chargé nañu suukar si yóbbu ci marché bi. boo xoolee ni la à titre exceptionnel donc waru woon am. à titre exceptionnel la pour dimbali nit ñi ne soulagement yi ndax tamit metti na ndax ngay dund mais chaque jour les mêmes choses ngay étudier ko xam ni donc dorénavant nii ak nii ak ngay def looloo taxoon liggéey bi xaw yàgg moo tax ngay yaakaar danoo bàyyi ba bii mais liggéey bu ñu doon def bi la te incha allah lépp matana te jàpp nañu ne lii dootuñu dalati askan wi daañu wéy di jëfandikoo seen suukar si ci njëg bañ ko daan jëndee dërëm yokku ci. ñu wax ci wàllu njàng ak njàngale campus scolaire euh, franco sénégalais bi nag dalaloon jëriñ ñi dénk wàllu njàng mu kaw bi di jëriñ euh, Moussa Balde moom nag ba la seetee doon seet ak nan la fa njànguma ma doxalee ak nan la ñuy fexe ba ña fay njàngee nekk ci anam yu mucc ayib euh, campus boobu nag ñaari réew di Sénégal France ñoom ñoo ko moom dañu ci déglu reportage yu Koumba Ndiaye. mbooloo mu takku la kii di ministre bi yor wàllum enseignement supérieur campus franco-sénégalais ci daara ji nak ñi ngi fay def ay day tax ba ndongo yi fa buñ ca am diplôme yu war a mën Senegal, tax ci Sénégal wala fee bitim réew tek nañ fa film boo xam ministre bi tax na mu gën xam filière yi nga xam mo am ci daara ji ak li ko directeur général bi sénégalais la professeur Euh, directrice générale adjointe française madame Gauthier euh, université euh, comme ko wax Sénégal France la formation formation yu ak pour projet bi fan la est-ce que amna puis aussi processus bi nga xam université bi dañ campus franco-sénégalais don na loo xam ne ci li gën a féddali diggante Sénégal ak France la fii ci Sénégal ministre bi ak délégation bañ ca pare dem nañu fi nga xam ne mooy institut sénégalais britannique pour l'enseignement de l'anglais di école boo xam ne ñi ngi fay jàngale anglais visité nañu salle de classe ak bibliothèque ba nga xam ne moo fa ne daara jii di Hizbiyya nag defaraat nañu ko waaye am na tuuti ay jafe-jafe yoo xam ne ña fa nekk jébbal nañ ko ministre bi ñëpp xam nañu anglais lu mu doon ci àdduna bi ci wàllu commerce ci wàllu économie ci wàllu science ci wàllu relation internationale loolu moo tax euh, gis nañu cité euh, kii maanaam centre bi tey xam nañu am na ay jafe-jafe tuuti dinañu fexe ba en tout cas gunge leen pour que institut bi amaat doole bi mu amoon euh, buñ koy tabax. daara ji di ISBEA ña nga ko créé ci atum 1967 kii di ministre enseignement supérieur. nee na dana def lépp luy kéemtalaay kàttanam pour gën a taxawu lii di établissement enseignement supérieur yi ba dootuñu amati benn jafe-jafe ci benn wàll. yegg si ñaareelu xaaju xibaar yi di xibaaru tàggat yaram ñu résultat match di am ni ki démb moom mooy sax daal di tijji lii di sunu xibaaru tàggat yaram waa génération foot ñoo daal di dóor Linguère benn bal ci dara excellence ak Pikine daal di témbo Guédiawaye daal di dóor Dakar Sacré-Cœur benn bal ci dara dañu daal dem ci Premier League bi Manchester United daal di dóor benn bal ci dara ni ki démb waa Newcastle daal di West Ham juróomi bal ci dara Premier League la dem Manchester United daal di dóor Nantes mu dóor benn bal ci dara équipe bu Lyon ca Espagne moom di waa Barça la ñu jàpp ni ki démbu Real moo ko dóor ñeenti bal ci benn loole sax mel ni ab loole nekk mbetteel ci supporteru Barça ndaxte ñaari match yu mujj yëpp Barça moom moo daal di dóore équipe bu Real de Madrid ngir waajal bi les coupe du monde Malick Daf di entraîneur joueur yi nga xam ne seen at matagul la ñaar fukki at daal dina addu jëmale ci bëgg-bëggam jëmale ci bi les coupe du monde moom moomee suñ sukkandiko ci ay kàddoom jàpp rek pour nekk ab figurant waaye ko ci bi les coupe du monde gannaaw sax bi ñu demee ci coupe d'Afrique atub 2015 2017 ak 2019 gayndek U20 yi daal di ñàkk Malick Daf moom moomee sax nekkoon jamono joojee entraîneur bu U17 niki ren la daal di ànd ak yi les jël lii di coupe d'Afrique des nations loolu nekk lu njëkk gannaaw sax bu ñu fàttaliko kii di Joseph Koto moom moo ko formé ci lépp lu jëm ci wàllum coaching ak lu ni mel Malick Daaf taxaw na teemu rek def kémtulaay kàttanam ngir rek équipe bu Sénégal gën a sori ci coupe du monde bi dem sax ba jël bi le coupe dañuy desandi ba tey ak équipe bu Sénégal bi pa ci mag ñi la ñuy ñoom ñoo ñoo di waa FIFA ñoom ñoo génne waat ab classement bu bees lii di équipe bu Sénégal daal di dellu si waat ci dix-huitième place bi mu nekkoon ci àdduna wërngal këpp ba tey nekk ci ginnaawu équipe bu Maroc gannaaw sax njàmbaarte gi nga xam ne wane na ko ci jamono ji ñu génn ñaari match yi nga xam ne mujjee na ko am ci fàttali rek li waraloon bokk na ci mu gënoon a wàcc ci fi mu nekkoon mooy li nga xam ne éliminé nañ ko ci coupe du monde bi le weesu waaye ci ma waaye ci ñaari match yu mujj yi war na ci dix-huitième place Danemark moom moo topp ci équipe bu Sénégal jamono ji ñu toll nekk dix-neuvième place équipe bu Sénégal moom moom moo jiitu daal di nekk dix-huitième place ci àdduna wërngal këpp lii moo gënoon fës ci xibaaru tàggat ñu jaajëfal ko moom Assane càmm ci xibaaru tàgg yaram mooy ndar képp xibaaru marax yi ñuy jaajëfal Pape Massi Diop ci réalisation bi euh, production bi ñu ciy gërëm kii di Baye Mor Thiam ànd ceeg Diène Sarr ak Amsatou Sidibé ma leen jox dox daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf ndogu jàmm.